ñoom ñooy sama sama doole man sama sama famille ñooy sama doole te su soo xoolee li tax bi ma ñëwee parce que tàgguwuñ ma tàgguwuñ ma donc surprise dañ ma defal ñëw sama sœur yi parce que ñun ñëpp ay ñun ñëpp ay jigéen lañ man sama papa amul doomu góor ñun ay jigéen lañ waaye dara te famille moom duñu fier ci moom man sama famille dañu fier ci man fierté boobu nga xam ne dañu ci man fierté boobu nag moo tax man ma leen di delloo fu ma toll njukkal ndax man am na ku dul sama famille te man lépp loo xamante nii lépp lépp loo xamante nii lépp koy def di sonn wala ma may jéem am dara wala may jéem di may sonn sinon kon sinon kon sinon kon duma duma duma duma duma duma duma sonn damay tëdd jàpp sama ñaam mais man lépp loo xamante ne maa ngi koy def ci àddina lépp lu may def ci àddina c'est pour ma famille jaama may ma tuuti jaama may ma tuuti yaa baax jërëjëf parce moom day jigéen dana féete xale ci kër gi mais taxawaayu góor la am góor mënu ko ci suñu askan du Jolof du Mbàkke du Luga fu mu a doon lii nag moom daf ko doon ci mu ci maanaam ci deetam la nekk su koy def elle sans te du ci sonn elle fait facilement yaa daqawoo ci Sénégal góor jigéen foofu noonu vous avez une vous l'avez prouvé. La musique, elle est différente la musique. La musique a un fond. Et aujourd'hui, vous avez fait parler de la pure musique. Vous avez parlé de la diversité musicale. Ce titre bi nangu et li yow dañ la war a takkal ambassade de la paix. lii mooy tolérance nangu mooy acceptabilité mooy tolérance mooy indi jàmm ku nangul sa kenn du la nangul. bu loolu lawee jàmm du am ce titre bi il faut la vendre partout au Sénégal faites promotion avec l'équipe et on va en faire une man ku ñeme na nga ku moom sama tata la baayam moo sama baay actuellement man ci laa nekk seen moom ñoo ma yor ànd ak donc tout sa ay magam ñëpp ñoo nii en tout cas ngi si ginnaaw vous irez plus loin bi sa loxo lay des héritage bi héritage yu musique mi ngi ci say loxo héritage yu musique mi ci say loxo gëm ko te yaa koy wane wane nga ne yow dana am diversité musicale man nga woo ci côté ba t'as pas besoin de o aux gens qu'ils croient les gens ont senti ont cru en toi moo tax ñu ñëw fii tu peux la musique hors du peuple allez-y fonce ne réfléchis pas jërëjëf. Euh, on a tant d'autres références comme euh, nos arrière-grands-parents euh, euh, par exemple euh, voilà par exemple Mame Pawa Déwélé Mame Diarra Bousso Mame Kodda Aïcha Thiam ou bien Mame Coumba Ndoye yaay Mame Limamou Ndoye yaay Mame Limamou Laye autant pour moi alors ci loolu pourquoi le choix de Marie waaw le choix de Marème Faye je pense que c'est très simple c'est une c'est une nekk jigéen jigéen boo xamante ni man wayuma ko ndax parce que elle est première dame wala dama ko way wala parce que autre dama ko way parce dama ko gis nekk une femme gis sociale bi nga xamante ni nii mi ngi ci ma gis ne nit la boo xamante ni nii li ma gën a frappé ci moom ba tax ma am cofeel boobu si moom ba war a dugg studio di woy war ko si boole c'est parce que sa simplicité sa simplicité envers les Sénégalais tey je pense que ne Marième Faye Sall première dame la su ko neexoon tey problème lay toog gérer famille am gérer mais à chaque fois da nga koy gis mu génn di dem si nit yi di dimbale nit yi di leen jàppale di def euh, social boobu nga xamante ne nii euh, tey képp ku kuy nit rek war nga ko rafetlu tey le principal bi nga xamante ne nii tey moo tax way c'est parce que man je l'estime bien à simplicité et je me suis dit je def morceau pourquoi pas rendre hommage comme ça n'a rien n'a rien à avec la politique comme ni ma ko waxoon ci début bi moi je suis apolitique je fais pas de la pour pour wax dëgg pour wax man mosuma gis ma Faye Sall ko mais dama ko gis à travers li muy def à travers li muy jàppalee néew di doole yi à travers ku feebar y a pas mal d'artistes yoo xamante ne tey feebar nañ fi nekk ci ay tolof tolof moom moo leen jël en charge yóbbu leen mu faj leen ak simplicité bi nga xamante ni koy dégager en tant loolu moo tax ma naan dafa yi déjà morceau bi euh, wayu gawlo la waaw morceau bi wayu gawlo la et je pense que ne Youssou ni ma koy jox ne pour ma reprendre ko xam na ne mën naa ko moo tax mu jox ma ko te xam naa ne su fekkoon ne moom xam na ne man mënu ma ko reprendre donc du ma ko du ma ko jox répétition la ma ko joxee ma tari ko dëggaat du fi jox daal di koy tari deuxième question bi mooy euh, gisuñu euh, jigéen fii ci la ñu wax am dinañ invité ay jigéen gisuñu ko parce que ñu ngi jëlee déjà journée internationale de la femme le 8 mars mais ci album bi ni mu génnee contexte bi ñu toll nii sentir ni fii ci la ñu wala invitation boo xam ne jigéen sax ñu wax naataango jigéen ñi. waaw c'est vrai que ne album bi amul featuring ak benn jigéen ça c'est vrai mais juste que ne du dara parce que euh, man aw ma benn problème ak benn waykat bu jigéen ñoom ñëpp mais juste que ni ça dépend si registre morceau bi kan moo ko mën a def. c'est une longue histoire moom dafa bëgg jigéen ñi di leen sagal di leen jox cër bi ñu moom donc loolu moo tax ma woo ko ci morceau bi pour moom mu